واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجن رسول الله اليكم واجبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله أكبر judat fatiha falak ak naasi salaatu ala nabi yàlla may ñu ubbee ci barka bàyyi laay bismillah ñu wàññi coow li dañu tudde yàlla bu baax xam li ñu fi tax a teew ñu toog ba pare ñu concentré xam ni bërëb bii li ñu fi tax daje dafa rëy lool bis bi nga xamante ni si la Seydina Limaamu waxoon wax ju rëy yéen ngeen am sens teel agsi toog bu rafet bii lenn rek moo ci des ànd ak dal te ñu tudd yàlla bismillah fatiha falaq ak naas salaatu ala nabi bismillah يا قلبي أنت العذاب وزول يا بدي أنا هذا أبو وسر البحث به وسر إلهي سيد مرسلين مرسلين باي لاي باي lay lay baax na lay jàlle noo maam baay lay sidi mursalin baay lay baax na lay jàlle noo maam baay lay sidi jar saawolo gaaw jabel ma jaleer yaa ba ilay baax na way jalina maam ba maam kumba doy ma jaleer yaa ba ilay lay jalina maam kumba ma jaleer yaa ba ilay baax ilaay baax na lay jaleena maam ba ilaay kumba mataleeri ba ilaay baax na lay jaleena maam ba ilaay kumba jëlee riha ah, bay lay baax na lay jëlee noo jëlee noo bay lay kumba ma jëlee riha bay lay leen yàlla tudd leen yàlla tudd leen yàlla baay laay baax na lay jàlle noo maam baay laay laaxa illa laay aw maam baay laay baax na lay jàlle noo maam baay laay laaxa illa laaw maam baay laay baax إلا لا يا مام با إلهي باخنا لا يجلين مام با إلهي لا إلا لا مام با إلهي لا الإمام يا رسول الله ينتسوا با إلا لا الإمام يا رسول الله ينتسوا با إلا لا الإمام يا رسول الله ينتسوا با إلا لا gaay sikar sikar ilaala limaamu yaa rasuulullah jinja sawba ilaala limaamu yaa rasuulullah loxo ca kaw ñu màggal yàlla ilaala limaamu yaa rasuulullah jinja صوبا إلى الإمام يا رسول الله جئت صوبا إلى الإمام يا رسول الله جئت صوبا إلى الإمام يا رسول الله جئت صوبا إلى الإمام يا رسول الله جئت صوبا إلى الإمام يا رسول الله جئت صوبا إلى الإمام صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله جئت صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله جئت صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله جئت صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله جئت صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله جئت صوبي إلى لا الإمام يا رسول الله سوما إلى الإمام يا رسول الله جلد سوما إلى الإمام يا رسول الله جلد سوما إلى الإمام يا رسول الله جلد سوما إلى الإمام يا رسول الله جلد سوما إلى الإمام يا رسول الله جلد سوما إلى الإمام سوف إلى لا الإمام يا رسول الله جئت سوف إلى لا الإمام يا رسول الله جئت سوف إلى لا الإمام يا رسول الله جئت سوف إلى لا الإمام يا رسول الله جئت سوف إلى لا الإمام يا رسول الله جئت سوف إلى لا sikar ilaala limaamu yaa rasuulullah injiin jasawbay ilaala limaamu yaa rasuulullah injiin jasawbay ilaala limaamu yaa rasuulullah injiin jasawbay ilaala limaamu yaa rasuulullah injiin jasawbay ilaala limaamu yaa rasuulullah injiin jasawbay ilaala limaamu lay la yàlla wóolu ilaa la limaamu lay la yàlla wóolu sol ko leer yaay ilaa la limaamu lay la yàlla wóolu sol ko leer yaay ilaa la limaamu lay la yàlla wóolu sol ko leer yaay ilaa la limaamu lay la yàlla wóolu sol ko leer yaay ilaa la limaamu lay la yàlla wóolu sol ko koleer ya ilaa la limaamu woolu sol koleer ya ilaa la limaamu la woolu sol koleer ya ilaa la limaamu la woolu sol koleer ya ilaa كوليريا إلا لا بيلا يجيد خل ينواناني توبي إلا لا بيلا يجيد خل ينواناني توبي إلا لا بيلا يجيد خل ينواناني توبي إلا لا بيلا يجيد خل ينواناني توبي ci tuube ilaa la bay la ya jiitu xal la yoon wa naani tuube ilaa la bay la ya jiitu xal la yoon wa naani tuube ilaa la bay la ya jiitu xal la yoon wa naani tuube ilaa la bay la ya jiitu xal la yoon wa naani tuube ilaa la bay la ya jiitu xal la yoon wa naani tuube ilaa la ni tuube ilaa laa bay laa yajiitu xal yoon wa naa ni tuube ilaa laa bay laa yajiitu xal yoon wa naa ni tuube ilaa laa bay laa yajiitu xal yoon wa naa ni tuube ilaa laa bay laa yajiitu xal yoon wa naa ni tuube ilaa laa sayyidina rasuulullaah laa ilaaha illallaa gaa yi wax leen baat bi la ilaha illa sayidina rasulullah la ilaha illa sayidina rasulullah la ilaha illa sayidina rasulullah la ilaha illa sayidina rasulullah la ilaha illa sayidina rasulullah la ilaha illa رسول لا إله إلا الله من الإمام لا إله إله إلا الله من الإمام لا إله إلا الله من الإمام لا إله إله إلا الله من الإمام لا إله إله إلا الله من الإمام لا إله imaam la ilaha illa la mana imaam la ilaha illa la mana imaam la ilaha illa la jàll nu limaam la sawaay du jaaxle illa la jàll nu limaam la sawaay du jaaxle illa la jàll nu limaam la sawaay du jaaxle illa la noo li maamu laay sawaay du jaaxle ilaala li maamu laay sawaay du jaaxle ilaala jàlle noo li maamu laay sawaay du jaaxle ilaala jàlle noo li li maamu laay sawaay du jaaxle ilaala ilaala looli maamu lay saway du jaaxle ilaala jallenu imaamu lay saway du jaaxle ilaala jallenu imaamu lay saway du jaaxle ilaala la ilaha ilaala la ilaha ilaala la ilaha ilaala la ilaha ilaala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 tuddee leen yàlla gaay tuddee leen yàlla sikar البداية لا ويا ما خسر الإنس والجنين رسول الله إليكم أجبا دايا لا ويا ما